juróomeelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi diirub ñeent fukki fan ganaaw ba yéesu dekkee feeñu na ay taalibeem yoon yu bare te jàngal na leen yéesu wax na leen dina leen yónde dimbalikat bi maanaam xel mu sell mi bala muy dee yéesu digoon na taalibeem yi ne dina yónni xel mu sell mi yéesu nee na te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen gannaaw gi yeesu nee na li gën ci yeen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalikat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dina yey nit àddina ci lu jëm ci seen bàkkaar ci lu jëm ci sama njubte ak ci lu jëm ci àtte ba yéesu wax na leen ñu toog yerusalem ba yàlla doole leen ngir ñu mën koo seddeel nee na leen ndaxte yax yaxya daana sóob nit ñi ci ndox waaye yeen des na leen soob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew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 bës bu nekk ba kera àddina di tukki bi yeesu dekkee ba mu am ñeent fukki fan dafa yéeg asamaan ci kanamu taalibeem ya bi ñu koy xool ñu gis ñaari malaaka ñu taxaw ca seen wet malaaka yi ne leen lu tax ngeen taxaw di xool ci asamaan si yéesu male ñu jëlee ci seen biir yéege ko asamaan dina dellusi ci ni ngeen ko gisee muy dem asamaan kàddu dëgg gi nee na bu yéesu dellusee dina àtte àddina si ñi ko nangu ni seen musalkat ñooy ànd ak moom dem àjjana ñu nanguwul ñépp dinañu sànku ba faw fii la nettali bi yem léegi ma laaj leen juróom lan la yéesu def diirub ñeent fukki fan yu topp ci ndekkiteem feeñu na ay taalibeem yoon yu bare te jàngal na leen juróom ñaar lan la yéesu dig ay taalibeem te muy lu am solo digg na leen ne dina yónni dimbalikat bi di xelu dëgg gi ngir mu dëkk ci ñoom digg na leen ne balaa yàgg dina leen sóob ci xel mu sell mi juróom lan la yeesu wax ne xel mu sell mi dina leen ko may xel mu sell mi dina leen may ñu mën a seede xabaar bu baax bi ne yéesu fay na bàkkaar yi nit ñi juróom-ñeent ci seen xalaat ndax taalibe yeesu yi tey jii bokk nañu ci li yeesu dige ci mbirum xel mu sell mi waaw ba tey jii xel mu sell mi dafay wàcc te dugg ci bépp taalibe yeesu fukk lan la yéesu wax ne xel mu sell mi dina ko liggéey ci àddina xel mu sell mi dina yey àddina ci wàllu bàkkaar ak ci njubteg yàlla dina leen jàngal ni ñuy àttee ñi bañ a topp yéesu xamal leen mbugal giy dikk ci ñi bañ a topp yéesu fukk ak benn lan la yéesu sant ay taalibeem ñu def ko nee na leen ñu dem sàkk ay taalibe ci xeet yépp te sóob leen ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi te jàngal leen ñu topp lépp li mu leen sant fukk ñaar ci seen xalaat ñan la yeesu sant loolu yéesu sant na ko képp kuy taalibeem fukk ak ñett lan la malaaka yi wax taalibe gannaaw bi yeesu delloo kaw asamaan wax nañu leen ne yéesu dina dellusi ci àddina ni mu demee asamaan fukk ñeent ndax gëm ngeen ne yéesu dina dellusi ci àddina ni ko malaaka yi yëgle waaw ndaxte yàlla lépp lu mu digee dina ko def fukk juróom ci seen xalaat ci kóllëre gu bees gi naka lañu nuy baalee sunuy bàkkaar ba ñu dem àjjana war nañu gëm yàlla te dëddu sunuy bàkkaar war nañu nangu ne deewu yéesu fay na sunuy bàkkaar te topp yàlla ak sunu xol bépp fukk ak ci seen xalaat naka lanu mënee topp yàlla te fekk bàkkaarkat lañu yàlla dafa yónni xel mu sell mi mu dëkk ci nun te soppi sunuy xol fukk ak bu yéesu dellusee àddina lu muy def kàddu dëkk gi nee na bu yeesu dellusee dina àtte àddina si ñi ko nangu ni seen musalkat ñooy ànd ak moom dem ajana ñi nanguwul ñépp dinañu sànku ba faw